aousubillahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata mustaqima sirata lasina an'amta alayhim xayril mahdubi alayhim wala daalin amin waftax lana kulla baabin kunta fatihahu lisaalihina min alxayrati yàllaaw ñu sant yàlla bu baax a baax julli ci yonent bi sant Sëriñ Tuubaa bu wér a wér ñu nekk fii ci diwaanu Dagg Sàmm ci sant Serigne Touba gi doon def chaque année ren di cinquième édition ñu di ko woyal instant bi ñu toll nii ñu ñëw nekk ci kër président Serigne Jimba mu war a sànni ay kàddu ci daayira bi soññaan ndaw ñi gën leen a xamalaat ñu gën a xamaat fu ñuy teg seen ci yoon bi nga xam ne yoonu Serigne Touba moo baaxee noonu ku la jiitu ci yoon bi rek moo lay jiita boo defee nga topp ci ginnaawam mu di la gindi. kon daal ñu fas yéene bàyyi ko kàddu gi rek incha allah di nuyu mbokki taal bi yëpp te di ko jox kàddu gi rek sëriñ Jimbalum bisimilah. bisimilah rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim amin yal na ànd ak ndimbal yàlla yonent ba ak sëñ Tuuba ah maa ngi sant yàlla sant yonent ba parce que man sama wàllu bopp ah ba ma ànd samay mag ba fii ñu toll ñu ngi si yoonu sëñ Tuubaa rek maa ngi leen di sant di leen di gërëm xale yii na moom wax dëgg yàlla gën leen a sant di leen di gën a ñaanal moo mooy li ma war ndax maag samay mag ñoo fi naan ak samay nijaay yàlla def na nag ah loolu yëpp ñu ngi xaw si waaw waaw waaw yàlla yonent ba sëñ Tuubaa yàlla wàññi leen waaye terewut ba tey njaboot moom ko am doom rek tardé woo ah ñu ngi siy sant yàlla bu baaxit ndax ñi fi baale ñi ngi bay woon ñii samay rakk lañ ñii samay jarbaat ah wax dëgg yàlla ñoom it def nañ la nga xam ne moom ñii suñuy mag ak suñuy papa su fekkoon yàlla dogaloon nañu ñu mënoon a seede lii kon dañuy wax ne yéen a ñu gën a neex jamono waaye nag ku nekk sa wàll nag yàlla moom mooy séddale ah ba tey ñu ngi sant yàlla di ñaanal waajur yi nga xam ne ñoo ñu sampoon ci yoon wii pour ñu xamal ñu yoonu Sëñ Tuubaa ah man de suma mag ci boppam Mama Loum moo moo moo fàkk daayira bi jamono boobu man maa ngi nekk waxambaane nii ak sumay mag ñu nekk ci ak dëkkandoor yi yëpp tax mënoon naa lim yëpp waaye ku lim juum waaye ba loolu yëpp ma nekk feek ñoom ah ñuy dimbalante ñu xam yoon wi gën koo feddali ba tax na ñoom biñ yàlla defee ñu nekk mag it ñuy jàppale ne mujj gi ñu foofu xeen bi xeen xeen xeen ko borso alaaji borso borso borso borso pen ah biñ ko ko joxee it wax dëgg yàlla moom dawal na si wàllam ba yàlla noppal ko si ah dañu ñaan ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitu itam yàlla yërëm leen te jéggal leen si daraja yonent bi barke baax Touba man de baa ngi sant yàlla bu baax ndax lu bari fekkee naa ko ci waaye nag man damaa nekk taalibe boo xam ne moom jëf ak ñaq rek laa sàlloot jéew maa seet sax ni mën naa takk ne bés bi at mi nangam nangam yooyu moom mënuma koo garante loolu it dama toll rek ne man sama wàllu bopp li ma war mooy liggéey liggéey sama bopp liggéey Sëñ Touba daanaka man awma yàlla def na nag bi ma ko sumay mag bàttalee si lu demee noonu tàggat ñu si bañ yàlla dogal ñu ñu nekk si am naa yaakaar ne ñu ni wax dëgg yàlla ah wuñ ko wuñ ko de wuñ ko te ñi nga xam ne ñoo nekk ndaw nekk suñuy rek nekk si suñuy jarbaat ñoom gis nañ yoon wi ah gën nañu jàppale ba tax na ñun luñ doo doo mag itam de ah dañuy def ne géeyob géeyob taali bi moom buñ fa taayee ndab fokk nit ñi fokk ñu ñu su ndab loo xam ne ndabal teraanga la fokk ñu jiiroo ko ñoom ñi ne jamono bu ne ñu ngi ñuy wut a wàcce waaye ñun ba tey ñun suñu wàllu bopp yàllaa ñu si tàggat ndeg coono ba la leen démb biñ gisoon suñuy mag loolu ñu ngi siy sant yàlla bu baax di sant yonent bi ah di sant xale yi it fu ne nii buñ doxoon it xam na ñu ñu ñu ñu aw am na ñu ñuy aw aw boobu itam man maa ngi siy ñaanal gone yi niñ si amee yaakaar. yàlla na ko yàlla dogal si darajaay yonent bi barke Serigne Touba. ah man nag dafa nekk waxi rajo moom dama si dut xaw a xóot ndax da ngay dem ba kontaan mun ngaa dem sax sa xol daal di lëmbee duggaat feneen waaye loolu man ah wax di yàlla nekku suma suma kii lii de dafa nekk loo xam ne samay rak ak sumay jarbaat ñoo ma ko njukkalee rek waaye maa ngi ciy sant yàlla bu baax nag ndax ñi nga xam ne itam ñoom laa ñoom laa fi nekkatoon. nekk na ñoo xam ne xoolu nañ ma lool ah ma ne si yëf kon su ma fekkee it mel na ni it a ah, yàlla dimbali na ma si a ah, man de képp li ma mage mage mage mage mu néew néew it maa ngi si rek ak sama njaboot awma si benn yokkot tàggat naa leen si ba nit ñi suñuy mag tàggatee it maa leen si tàggat kon fa su ma yéene moom feeg bu may sàngoo suuf fa su ma yéene yëf yi rëcc ma su ma mënee it danaa def. benn ma def sama doole ak sama jëf wala ma def sama sama sama sama sama doole waaw loolu ma it maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax gërëm naa na yii nga xam ne sama jarbaat lañ ñoom ñu ngi ci tey ba ëllëg moo tax man du ma mën a fàtte yoonu Sëñ Tuubaa mukk ma ko mën a fàtte du ma ko mën a fàtte ba siraatal mustaqim xanaa yàlla wàcc ma rek waaw loolu maa ngi ciy sant yàlla bu baax sëñ ma man waroon jawdin ju mag gi bi nga xamee ne it euh, sëñ Modou ñëw na fii fii la njëkkee jógee mbuuma ñëw fii bi mu jógee mbuuma ñëw fii mu dal si kat jàmmati jabluum bi mu fi dalee it ñu xoo ñu ñun ñëpp maak samay nijaay ak sumay sumay mag ñoom ñëpp ak borom dëkk bi bàyyi matexe mii ñun ñëpp ñu fa lañ jébbalu woon te boo léegi mi ngi bëgg a yàgg mi ngi bëgg yàgg sant nañ sant nañ si yàlla nag bu baax a baax a baax ndax lu baax moom kenn du si doyal ma de du ma si doyal du si doyal mukk mukk mukk xale yi it maa leen sant di leen di gërëm gis nañ yoon jàppale ñu war nañ war nañ ñu it am nañ ci yërmande yi ne war nañ ñun ay mag lañ waaye lépp lu jëm si yàlla ak yonent bi ak Sëñ Tuubaa moom fa néew ko yor say loxo man de duma ko def lu ma boo manee de dana def bu baax dëgg la sama njaboot yi war naa leen yoon wi taalibe moo xamul lu dul yar ak teggin ak ñu sant la nga def nga gis sa sëriñ wàcc loolu moom xam naa ko ci bu baax xam ndax loo ànd nag say mag ba fi ñu toll ah ñu jékk ba ngay ànd ak say doom jarbaat loolu doy naa sant yàlla kon nag mu ne maa ngi leen di gërëm di leen di sant ñaanal leen yàlla yàlla faj seeni i xaajo may leen fan wu gudd waan gërëm taxawuñ saay rek baatin daayira bi yàlla ko yàlla jëmale kanam taalibe yi yal nañ yokk yàlla nañ yokk yaa rabbi yàlla def ci jàmm ak barke si darajaay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ok jërëjëf sëriñ Jumbulum léegi looy soon ñi ndaw ñi nga xam ne ñu ngi ci nekk ci yoon bi seen melokaan ak seen dox yi nag yëpp loo lañ ci soññi bu baax a baax. waaw ba tey man sama wàllu bopp it maa ngi leen si sant di leen gërëm ndax keroog bi ñu eh, format lii war naa dem si ay xat dem na si lu demee ne ñeenti xat wala juróom man na du may am takk. ndax man lépp loo xam ne dañ lu baax la rek dama si xam xiddi man ba li ñuy wax na ay dat ak nangam nangam duma si fekk ah seen naa ne yéen seen wàllu bopp wax dëgg yàlla dama leen di ñaanal yàlla yàlla jëmale leen kanam rek parce que yéen yéen seen wàllu bopp ni ngeen ko organiser fu ñu nii ñun ñi xam ne ñun ñu tàggatoon te ñu xànd na ñoom sax suñ su leen yàlla génn génneewoon tey ji dañuy gën a kontaan dañuy xam ne wàcc nañ fi ay ay takkandeer yu baax yu xam ngërëm kon ñu loolu ñu ngi siy sant yàlla bu baax a baax a baax waaw ñu ngi si sant yàlla bu baax a baax a baax ndax doom boo gisee ñu ñaan yàlla yàlla may la doom doom ju barke mooy lii ndax lii barke rek ko man barke rek ndax suñuy waajur wan nañu yoonu sëñ Touba wan nañu julleeg yëpp ñu ànd ak ñoom tàggat ñu si yoonu sëriñ Touba loolu yëpp nag ñu nit wax digg yàlla récc rëccuwuñ ko yaakaar naa ne fii it sëriñ bu ne ñëw na fi te dàgg sax moom yàlla fa leen dimbalee ne ñoom amuñ ah, xaaj seen ay murit ak tijaan ak yooyu amuñ si benn xaj ak seen ñun ku xam xew rek ñëpp booltoo nañ ñëw defal la ba sa xol sedd nga ne jaagin ci wax nañ bokk ñaan gi waaw kon nag niñ koy defee nii yal nañu si yàlla gën a jàppale si jërëjëf borom Touba. alhamdulilah ñu santaat yàlla bu baax a baax julliwaat ci yonent bi bu baax a baax santaat suñu sëriñ sëriñ Touba Xaadimu Rasuul di ñaan sa borom ñu ko bu baax kon nag ñu ngi fii ci diwaanu Dagg Samb nekk ci cant gi cinquième édition bi. ñi nekk kët borom dëkk bokk ci daayiratu salaam ñi fas yéene jox ko ay kàddu rek mu soññ ñi wax ñi ci yoon bi bu ko defee mbokki taali bi yëpp jëriñu si incha allah kon bisimilah sëriñ maam Gourane di borom dëkk fii ci diwaanu Dagg Samb. bisimilah. auzu billahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla di dolli ci liñ santoon ah, euh, lii daayira bi ñu ngi ciy dolli sant yàlla di gërëm sunu sëriñ sëriñ Abo mi xam ne mii moo taxawal lii fii ci dëkk bi ak suñu doom yi ak suñu rakk yi ñu ngi leen di ñaanal ñu nag suñuy kàddu du ci sori lool ndax wax dëgg yàlla taxawaayu taalu bi rek lañ taxaw ah dolli cant rek lañuy def di leen di doolee ñaax seen taxawaay ngeen góor góorlu wax dëgg yàllante bi ah gërëm leen sant leen rek la ñuy def fekkoon ngeen ci seeni kilifa waaye fi ngeen ko àggale nii wax dëgg yàlla yant bi mënuñ lu dul ñaanal leen di leen di sant te di leen di ñaax ci lii ngeen ne yàlla na yàlla def leen ay mag def leen mag ñu am barke ci barke alxuraan lépp lu waay yootu ci doomi dëkk bii yàlla na ko jot ci lu baax te musal leen ci ay gàllankoor ci barke alxuraan yàlla xam na ko mën na ko yàlla na yàlla defal ñu ko suñu sëriñ bii nag ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax bu baax di ko ñaanal yàlla yal yàlla wéral ko yàlla na yàlla guddal aw fanam te yàggal ko fi ci barke alquran lii daal ah mooy kàddu yi bu guddal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë geen jëf